dëkkub Cheikh Mouhamadul Fadal ci turu Cheikh Abdoul Fatah mi nga xamante ne bii mooy jëwriñ bi dëkk bi Cheikh Abol Baraka mooy jëwriñu kër Cheikh Mouhamadul faadal waaye fii ci Touba Ndindi Cheikh Abol Cheikh Abdoul Fatah mooy jëwriñu dëkk bi. di leen sant bu baax di leen gërëm ci turam ndax Cheikh Abol Cheikh Mouhamadul Habib Cheikh Mouhamadul Fadal keroog bi mu namee jotaay bii. woo na Cheikh Abdou Fatah waxtaan ceeg moom mu rafetlu ko lool te yàlla mi dara tëwut xam na ne e, kilifa yi ci dëkk bi kenn ku ci gën a ku ci njëkk jàpp Cheikh Abdou Fatah ci Touba ca kanam amut ku ko ci gën a jàppit amut ndax li may wax loolu ma leer la at mi ñu ko sosee ba mu laataa am ay weer yu néew woo na ma ma ñëw mu yëkkati million teg sama loxo ne ma demal joxal ma ko si Habib ne ko maa ko tàmbalee ci liggéeyu Touba ca kanam xam naa bu ci jiitu ci njëkk a jëf millions yi ca ña ca jiitu ña ca topp ca la bokk ca at mu jot mu def ko ba daaw jéeg koor la ma woo ne ma wool sëñ alaji sëriñ ko ne ko batale naa laa ak moom fu nekk nga fekk ko fa joxal ma ko million te diggante ñaari millions yi ñaari millions dox na ci diggante boobu kon ñu xam ne Cheikh Abdou Fatah moom lépp lu jëm ci tuubaa lu koy yëkkati wala mu koy kawel wala mu koy rafetal kenn jiituwu ko ci kon bu sëriñ abi bu bëggee ñu ñëwaat ci dëkk waajuram bu tedd bii yëgal ko ko ñoom ci Touba ca kanam ñu def ab délégation ñëw fii ñoo ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen yëgal di leen xamal ne ñoom nee nañ kat sëriñ Abibu mi ngi ñëw ak lenn ci délégation bi ci délégation ci Touba ci kanam boobu jiitu ñoo ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyoo ñu ngi leen di nuyu di leen jox nuyoo Cheikh ndax ba ñu wooyee Cheikh Abdou Fatah wax ak moom ba noppi dafa woote woo na sëñ Ala Ndiaye mii waxtaan ceeg moom bàyyi góor a sëye ngi nii nga xamante ne bi moo fi mooy moo mooy kilifa mag ñi fi nekk ñëpp bu waxee daanaka waa dëkk bi yëpp wax nañ sëñ Ala Ndiaye mii bu waxee yóbbaale na ñëpp suñu waxee ci ndongo li gën a xeebu waxee ci kàddu Cheikh Abdou Fatah yóbbaale na ñëpp ngeen ngeen xam ne rek liggéey bii ngeen sumb ñor na murit yëpp wala ñor na képp ku bëgg lu baax moo xam nga di murit wax la nga ñàkk doon murit ndax liggéeyu Serigne Touba yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun ku la ciy woo war nga ko sant gërëm ko ndax defal sa bopp la kuy defal sa bopp nag loo man ci àdduna danga koy def ndax ku baax di sama Serigne Cheikh Saliou daf daan wax ne dafa am at moo xamante ne bii Cheikh Mouhamadul Fadal da leen na sas aw sas wu jëmoon ci jumaa ji mu toll ci fukki junni mook Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Soyebu nee na Cheikh Abdoul Ahad bi mu toppatoo lam toppatoo dajale ko boole ko ak la Serigne bu dajale lépp bi ñu ko dajalee mi ngi tolloon ci ñeenti juróom benn junni ñoom ñaar bi mu ñëwee seet ko fekk na mbayam mépp mi ngi tolloon ci ñeenti junni bi mu ko yëgalee ne ko Cheikh Abdoul Cheikh Mouhamadou Fadal ka def ñoo laajoon fukki junni dajale woon nañ ba am juróom benn junni mu ne ko man de ñeenti junni laa jotee mu ne ko anamu nee na bi koy Cheikh Abdoul Ahad di jël ci moom dafa mel ne daf ko doon nangu ngir kontaan ci gum kontaan ci fukki junni yi lañ Cheikh Cheikh Modou Fadal sas mat gi mu mat te boobu moom ñeenti junneem yooyu bari na lu mu ci naaloon waaye ndeysaan bi mu ñëwee jox ko moo Modou Fadal daf koo wax ne ko bu déwénee de képp koo xam ne sa mbay a ngi ci lii mooy doon sa asaka bu déwénee maanaam képp koo xamante ne sa mbay a ngi ci biir lii lii mooy doon sa cheikh cheikh Salih wax na ne ba déwén sa dellusee ñeent fukki junni la am ñeenti junni la amoon daa waaye ren bi mu delee ñeent ñeent fukki junni la am nga xam ne junni bu nekk juróom-ñeenti junni topp na ci mu bu tey doonoon démb lu mel noonu dinaa ci gën a góorgóorlu kon ndegam ñun demaguñ fenn nag te dañuy doog a jóg li ñu am nañ ko jox sëñ bi te xam ne bu sëñ bi wëlbatikoo rek maanaam da danañ danañ danañ danañ sant danañ bëgg fii ci àdduna àllaaxira doog ñëw ndax Sëriñ Tuubaa moom lo ko waay defal doonte da nga jël benn potu ndox jox ko benn doomu aadama mun naan ko ngi jëmi Sëriñ Tuubaa dong bu la fayee nga rus di leen nuyu ci kaddu waa dëkk bépp ah di leen sant di leen gërëm di dalal délégation bi nga xam ne ñoo fi jóge tey fekk sunu fii te lépp waroon nu waaye li dafa mel ni defuñu ci dara ñu defal nu ko niñ ñu ko bëggee kon may soññ sama bopp rek di soññ mbooleem ñu nekk ci dëkk bi ndax yaakaar naa Touba ca kanam tey kenn waratu ko présenté kenn ndax yaakaar naa bañ dalee yëngu ci dëkk bi yàgg na lool ah ma yaakaar ne kon tey nun ñëpp war nañoo takku fetli suñu laxasaay waratuñoo bëgg dara lu dul ko doxal ndax lii kat ci def kat sa bopp rek nga koy defal ndax képp ku ci def kat na nga xam ne am nga ngërëmul sëñ Tuubaa te dara bàyyiwuñ si lu dul ngërëmul sëñ Tuubaa ndax ngërëmul sëñ Tuubaa mooy ngërëmul yàlla kon léegi dara bàyyiwuñ si lu lool rek lañ la sàkku kon maa ngi leen di soññ kenn ku ne ci nun nga takku bul xeeb weer wu dee wu ne nga fas yéene léegi jaayante dikk dag Tuubaa ca kanam ndax yaakaar naa lépp ci nun rek lay dellu si defaluñ ko kenn kat nun rek lañ koy defal ndax bari na ay jafe-jafe yu fi amoon yoo xam ne yépp mënuñu ci woon dara te Tuubaa ci kanam mi ngi ciy dox kon loolu war nañoo doy nun ñëpp kenn ku ne nga bàyyi xel Tuubaa ca kanam ndax Tuubaa ca kanam kat ku ci jàpp mu dem ku ci jàppul mu dem kon nag see ngeen jàpp ci léegi bala koy kenn ba ci kenn bala ciy kenn kon na ngeen ci jàpp yéen ñëpp. ci loolu nag noo ngi yëkkati kàddu yoo xam ne yu gàtt lay doon incha ndax Touba ci kanam li ñu ci war a xam xam nañ ko ba noppi wala xam nañ ci lu ko ëpp njariñ li it jërut deeti leeral ndax ku ne ngi ci teg sa bët. xam naa fi may gën a jëmi kàddu yi mooy ci wàllu soxna yi nga xam ne jotaay yu mel nii lu ci bari ci ñoom lay jóge te bari ki démb rek ñu amal ca jotaay jotaay bu mag a mag di ca jiital soxna Bintu Mbàkke ak soxna Maam Faati ak ñi ko àndal ñu amal ca jotaay boo xam ne kawee nañ jort lool waxtu wu ne ñu ngi jël seen jot bàyyi seenub liggéey di ko def ci Touba ci kanam tey it lëj boolewuñ kookub lijjanti waaye dañ koy joxe rek te Serigne Touba tax ndax xam nañ ne Serigne Touba mi ni jëfal mi ngi gis seen jëf taxawaayu soxna yi nag ci mbir mu baax loolu lu yàgg la dafa am koo xam ne bi mu tollee ab diggante da doon ñaan yàlla doomam doon góor mu féetale ko ca jàkka ja muy liggéeye jaamu yàlla kese bañ a dugg ci menn mbir yàlla dogal doom ja juddu di jigéen mu ne walay za zakaru kal unsa wa inni sammaytuha mariam mu ne a ah, mankat góor laa doon ñaan awma ko góor ak jigéen duñ benn waaye nag maa ngi koy muslul moo ko ay sëtam ci seytaane te maa ngi koy tuddee Maryam wa inni samaytuha Maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha min as-seytaani rajim waaye kookee nga xam ne moom la tuddee Maryam mujj na am ci moom loo xam ne xëy na bu juróon góor sax du ko jam ndax Maryam mooma mooy nday Isa liggéey na liggéeyal na yàlla liggéey bu rëy rëy ba sëriñ tubaa tënk ak xasida tënkee ko ayab fakul yi bi naan ko fusti bi sarfil xasanaat sayidatan li muxsinaat maryamu fuqti muuqinaat inda alladi yu yudrak mu ngi koy tagg ci ne mbooleem jigéen ña nga xam ne ay muxsinaat lañ ay way rafetal lañ moom moo di seenu sang moom sayidatuna maryam kon loolu day tegtal ne jigéen yàgg naa wut yàlla ci anam gone ba am ko it ci anam gu ne loola di wéy ba ni mu ni ñu agsee ci sayidatuna xadija radiallahu taala anha mooy ki jàppale sunu sang bu tedd bi sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam jàppale gu fés gu wér ba at mi nga xamee ni ci la ci la ci la génn àdduna moom sayidatuna xadija ak bàyyam boobu di Abu Talib te ñu daan taxawu ku tedd ki at mooma atum njàqare lañ koy woowee ndax ni ko daan dimbaleeg ni ko daan taxawoo te gisuñu ko moom lañu wax amul xos ni muy atum njàqare waaye mbokk yi loola di dox ba agsi ci sangaat bu tedd sayida boo xam ne bi mu jógee pas-pasam ak yéenéem mooy roy kooku ñu njëkk a tudd mooy sayyidatuna Maryam mu wax ne kat man de gis naa alquran mu wax ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallaahi wa xaatiman nabiin xaatimu nabiin goo nag googu nag mu ne moo ko jaaxal ba munta dogu ci amub yonante waaye dana dana liggéey fañ ko doon yàba dana fa liggéey liggéey boo xam ne ni kam fay indi mooy man ci ku yàlla bind kooka moo ñu andul moo ñu andil seyxul xaddim soxna jaara so moo ñu indil Cheikhul Khadim ci pastéef ak dogu googu nga xam ne moom la amoon sañ si Moussa Ka day wax ne soxna jaara de yéeneem juréy jëm yéene woon mooy sëñ tooba lam liggéey ci kër sañ Mor Anta Sali nag mooy Maamoor Jaara waaye yéene juréy jaa tax mu am Cheikhul Khadim kon soxna yi seenu taxawaay ci lu baax seenu taxawaay ci woote bi yàlla dafa yàgg di fés am na ca ku ni wax soxna Faati Isa Jóob moo jur mam na boroom daaru ku teeloon a jox boppam sëñ Tuubaa la ku teel ànd ak sëñ Tuubaa liggéey bi la am na ca ku ni wax maam Anta Njaay moom bi sëñ Tuubaa di dënk di bi sëñ Mor Anta Sali di dénk sëñ Tuubaa naan ko dénk naa la njaboot gi daa caa dégg ay wax yu yéeme ba wax njabootam maam Cheikh Anta ne ko teel la topp sama ji ndax dégg naa sa baay di wax ci moom kàddu yoo xam ne nii kàddu yéeme yéeme la kon soxna yi dañoo teel ci wàll bu dee ci yoonu murit dañoo teel a ànd ak sëriñ bi ci ab wooteem doon niti pas-pas fii ci Touba dugub ji fi sëñ Touba njëkk a bojjul ñoom la ko bojjuloo soxna Faati Balla ak soxna Faati Dia ñaari doomam doomi sañu Mor Diarra ak doomi boppam ñoom la ko liggéeyloo bi muy sañ ci Touba jógee Salaam am na juróom-benni at ci biir juróom-benn weer ci biir Touba yoo xam ne sañc képp la ñuy def daa digle woon ne dëkk bi bu ñu fi togg buñ fi toggee buñ fi dëbbee bu buñ fi def dara lu ñu def nañ ko defee Daaru Salaam bu jagee ñu indi ko Touba booba soxna yi ñoo yoroon liggéey boobu kon ku baax ku ne fu mu mës a nekk di liggéeyal yàlla. am na am mbooloo ci ay soxna yu sell yu wér yoo xam ne ñoo taxaw di ko jàppale ci liggéey booba liggéey booba nag barke seen liggéey yooyu nag moonu dimbali bi Touba ci kanam yëkkati soxna yooyee yu tedd yooyu ñëw wuy siwaat liggéey Touba ci kanam ànd ceeg pastéef ak pas-pas boo xam ne nii yéeme na lool ñi nga ci seen ñu ci bari ay mag lañ Seydina Umar radiyallahu taala anha daana wax naan sunu borom yàlla na nga ma may pas-pasub jigéen ju màggat ngëmu ngëmu jigéen ju màggat ndax seen ngëm-ngëm yi ni mu wére ak nit ñu ñàkkee taradut maanaam genn sikk sàkka dootul nekk ci ñoom te loola day dañooñu dañu ay mboolooy mbooloo ci biir Tuubaa ci kanam loola tax na liggéey bi gën a dal sunum xel